Euh, naan mbikum képp ku wax ne Sénégal ñi fi ñàkk ndóol mi fa yokk fa ngay wax lu la neex jëwruñ ji ñi dénk koom-koomu réew mi du Hott fa weddi ba tëdd ca naaj wa xibaar yi fi génn démb ne fi mu toll ni Sénégal juróom benn million ngu doomu aadama ay fuqara masaakin lañ xamuñ luñ xañeeg reer ndékki te moo yéen a kaay ñu ko xamal donte nag moom jëwriñ ji nangu na ne diggante 2011 ba 2018 ñaar téeméeri junne doomu aadama yokk nañ fi ci ñoo xam ne fa ñoo ndóol waaye liy mooy 2012 ñetti million ngu doomu ak lu topp moo nekkoon Sénégal fi mu toll ni nag ëpp nañ ko di dem loolu moo tax nit ñu ñàkk ñi fa ñoo gën a bëri waaye tekkiwul ne ndóol mi Sénégal fa gën a yokk le quotidien yéen a kaay na loolu mooy gis-gis bu xóot bu jëwriñ ci xam kon enquête bu waa ANSD yi génnee jëwriñ ja fa ko xotti maanaam weddi ko na loolu xamut wal fajiri yéen a kaay ñu ko xamal la dépêche yéen a kaay na jëwriñ ji kay leeral na yëf ya ci gis-gisam info yéen a kaay na ko du moom rek de nguur gi yëpp gouvernement bi régime bi biñ joxee xibaaru ndóol mi fa yokk ci mi ñi gën a ñàkk ba léegi fa ñoo jóg ngir di a weddi ku nekk wax xalaatam ci mbënd mi plan orsec bi ak Macky mi santaan nañ audité milliards yu bëri yu ñu dugal ci ndox mi du kenn ku may jëwriñ ji di Oumar Gueye waxtaan wu yaatu la séq la Soleil yéene kaay nay leer laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy na Abdoulaye Wade léegi tey moo xam téeméeru at ba fii may wax ak yéen benn bëgg-bëgg rek la am mooy faxe ba doomam ji Karim Wade jiite Sénégal te ci loolu la nekk waxuma ko nag du samay kàddu doyen moo di ñang moo ko wax ci direct news lii yéene kaay mel ni ku naan wax nga dëgg ndax fa seetlu ne alliance ak Abdoulaye Wade képp ku ko def du ngeen juboo fa ngeen di mujj tàqali ko moom fa gis ne doomam ji ëpp xam-xam fa gis ne moo fi gën fa gis ne moo war a jiite ku nangoo topp ci doomam ji na Karim Wade da ngeen juboo waaye jiite Karim Wade Wade xalaatul loolu sax du ko nangul kenn moo tax fi mu toll ni seen coalition bii bi ñu war a demee ci local ya xam nga Thierno Alassane Sall génn na ca nee na la mu gis xamut ko waaye dana am ñeneen ñoo xam ne danañ génn l'observateur na ko fay dëggal li nga wax gis nga PDS mook ñam ak alliéem fi mu toll nii ci seen coalition ba ña nga ci ay jafe-jafe de bu métti te ragal nag yëf ya fay mujj tas ba tey direct news di ñu xamal ne diiwaanu mbuur ndaw ña tànn nañ Cheikh Issa Sall ngir mu nekk maire ba élection maire yi di ñëw nag xam na ay candidat yoo xam ne xam na ay menace tëkku yu ngàllu ci seen ndodd bi su fekkee fañ leen a mbuqi ca seen diiwaane du baax ci ñoom de yow seetal Ousmane Sonko Gàkku Abdoul mbay Balde Walfadjri yéene kaay nee na gaa yaa leen di xaar de buñ leen mbuqee ñu fori new de Les Échos yéene kaay di ñu xamal ne waa PS yu ndakaaru fixé nañu wax nen Macky sàll ay règle yu leer nañ ci investiture yi ñi ñu war a tabbu ngir ñu jiite mairie tal farandoore Aminata Mbengue Ndiaye xam nga lu ñu wax Macky Sall élection maire yi weesu 2014 mboolee maire yi boo xam ne PS ñoo ko gañe woon waa PS lañ fay bàyyi ñoom la ñuy sampaat pour muy leer li leer Serigne Bousso ci 24 heures yéen a kaay mooy ne Mamadou Diagne Fada fay saboté moo nar a yàq benn bokk yaakaar bu kebe maire critique yéen a kaay ne Macky Sall ci wàllu investiture yi maanaam ñi ñu war a samp ci benn bokk yaakaar Macky mi ngi ciy amal ak naxaate jiixi jaaxa ndax fay wax lii waxaat la le yow seetal Macky fa aaye ku samp boppam ci benn bokk yaakaar nee na nañ bàyyi moom dana tànn te bu tànnee bu beneen list am ñoom ñëpp nañ ànd ca lam tànn waaye gis nga si jamono jooju Macky aaye loolu mujj naa autorisé nanguwaat na ñenn ñoo xam ne su leen neexee ñu def seen liste bopp ci biir benn bokk yaakaar loolu mooy lan màtt fii ëpp fële ñañ nar a ŋànk yóbbu leen ca kaso ko boo mooy tuut mooy juróom benn député yoo xam ne fi mu toll tudd nañ leen ci mbiri trafiqué passeport diplomatique yi turbine yéen kaay moo ñu ko xamal léegi nekkatul ñaari député juróom benn député la ba tax kasoog rëbës ga nee samp ko defar seen néeg ya ngir dalal gaaña seen malaanu kiiraay ñoom député yooyu léegi tey ñu summi ko yoon mën a jàkkaarloog ñoom source a yéen a na ko hée yow faxe ko rek xanaa xamoo fi nii xam na ay député yoo xam ne ñu ngi oo seen moromu député yi assemblée na leen gaañu bu ñëwee ngir dindi malaanu kiiraayu Mamadou Sall ak Boubacar Biaye bu leen nangu bañ leen leese ko yéen a na ko seen loolu mbaa dana am njëriñ gis nga di tuumaal ci faa xam lu ma naqari ndax xar xanamu Sénégal moo nar a ñaaw lii gàcce la ci suñu réew mi laneen lu nar a nekk gàcce suñu réew mi mooy ñu ñàkk fayda ñun sénégalais yi ba Macky Sall def fi ñetteelu mandat du samay kàddu nag waxuma ko Mamadou Lamine Diallo tekki moo ko wax li tax mu wax ko nag nee na tubaab yi nga xam ne fa ñoo ñëw jël suñu xalalu réew mi maanaam suñ pétrole bi suñ fer bi zircon bi suuf si daal li fi nekk te baax lépp xam nga tubaab yi fañ koo jël ñun xamuñ ci dara léegi Macky bu amee ñetteelu mandat seen a baax moo tax borom nañ def lépp luñ mën rayante ba ñetteelu mandat du fi laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne lu jege juróom benn junne yi waa kër docteur ñoo nar a dem tuubaa dëkk bu sell ba ci màggal gi ngir saytu wér-gu-yaramu askan wa vox populi moo ñu ko xamal sursu ay yéene kaay na ko wàllug mask lu tolloog juróom benn fukki million lañu fa nar a yóbbu ba tax yéene kaay bi na Diouf Sarr moom door na màggalam ga nay leer la leer ba mel ni jant baar mooy tey mooy ba su dëgg ci kilifa ak Simon ndax tey la ñuy jàkkaarloog ba le mandat yéene kaay ñu ko xamal l'observateur mel ni ku naan jàqal naa kilifa ak Simon ndax gaañi atu kaso mën nañ leen koo daan buñ sukkandikoo sa article ya enquête yéen kaay ne ceer mooy xaritu kilifa bi ko filmé woon ca oto ba ndekete nam def kilifa def na ko Simon fexe na ba jonkalanteeg moom xaalis ñetti millions ak genn wàll ba pare daal di koy filmé ca biir enregistrement ba sax vidéo ba Simon ma ngi fay wax mbir yu garaaw tàggat yaram Bayern Munich ñooy saay-saay Barcelone lañ fekk dëkkam démb di ko jàngal football Bayern na fa jàpp Barça di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi ba muy bëgg a dee ñetti bal ci dara 3-0 mel ni taw waa Barça yi fa ñoo jommi waxoon naa leen ko ren ñoo nar a nekk nooy neex gi ku mbuqi jox sa morom mu mbuqi ñoom waa Barça yi nag équipe bu mag a mag bi ci lay football Real Madrid ak Inter Liverpool Milan stade na jogante yu nar a neex maan yu nag neex la wu démb fañ koo mbuqi ka ñu war a mbuqi nag ca kaso ga benn xale bu góor daal fa siif wiole xale bu jigéen bu am fukki at ak juróom ba pare wann ko lor allah filmer ko di ko def santas maanaam saa bu bëggee àndaat ak moom na ko kaay wala ma wane vidéo yi benn bés mu oo ko nag xale bu jigéen bu góor ba jël vidéo ko seen i xarit ñu gis yëfu saay-saay yañ doon def libération na xale bu góor ba nag jóob la sant teg nañ ko loxo waa ma ne ñaari ñaawteef nga def wiyole siif xëmbal ko ak wasaare vidéo boo xam ne lu bon nga ca def waaye bu la wóoree ne doomu procureur nga am ak affaire xale bu jigéen bu am 15 ans amul 18 ans de yow tiisuma la mbaaw bu gaañu paree ci yow rek hay xenu la de